président Macky Sall dafa def euh, poser des actes yu am important euh, en faveur des entreprises de presse mm-hmm. mu effacer ñu quarante milliards de dettes euh, vingt cinq milliards de redevance wàññil ñu yeneen redevance yu ñu war a fay ñu doon sàkku ci moom mu défiscaliser le secteur de la presse te mu ne ki koy wuutu kooku bu ñëwee dina poursuivre chantier bi mm-hmm. ban pro ban engagement nga mën a jël en faveur du secteur de la presse euh, ba mën a gën a euh, euh, ñëwal dundinu entreprise yooyu. xam nga danga tudd loo xam ni am na lu ma ci xam c'est que entreprise de presse yi seen modèle économique moom moo desee dox parce que tey boo xoolee bu may yeewoo di déglu revue de presse ba ñuy lim titre journaux yi. boo génnee nga gis ni yëpp cent franc lay jar model économique bu sous loolu moom mooy modèle bi nga xam ne doxul. mais ñi koy def mënuñu bañ mënuñu ko bañ a def parce que loolu moo leen di tax a dund je pense que la mesure qui a été prise par le président c'est une bonne mesure parce que euh, xam nga impôt instrument ut xaalis la mais aussi instrument de politique économique la impôt ñaari définition bi ñaar yooyu la kon boo demee ba sa benn secteur war a sooxe. wala secteur bi nar a tas wala nar a yàqu état war na mën a jël ay mesures pour sauver secteur boobu ce qui a été fait maintenant euh, waxoon naa ci sama déclaration de politique général fiscalité bi ñu am tey def na fukki at yàlla dafa dogal bi may nekk directeur général des impôts code général des impôts bi am ci lañ ko defoon bu defee fukki at diggante bi nag sunu xar kanamu koom-koom soppeeku na je pense que euh, dinañu lancer. code général des impôts bu bees réforme fiscale bu bees dinañ ko waxtaane ni ñu ko defee ci bële woo secteur privé yéen di ngeen ci bokk bu boobaa ci la ñuy xool yan secteur la ñu war a défiscaliser wala yan secteur la ñu war a wàññi seen impôt wala yan secteur la ñu war a yokk seen impôt pour réew mu mën a dugg et je pense que y a quelque chose à faire pour les entreprises de presse techniquement maintenant foog ñu xool ko ba bañ leen aussi ber mu doon ay entreprises yoo xam ne aussi dafa mel ni parce que tout simplement am nañu capacité soit di wax walla di influencer kenn du leen euh, teg ci ci yoon je pense que c'est une réforme qu'on va lancer et bu booba vous di ngeen ñëw mën a wax seen xalaat ñu xool lan mooy gën a jaadu mais dans tous les cas euh, les entreprises de presse sont très utiles au pays très utiles à l'économie du pays et moi je salue la mesure prise par le président de la République. xeltukat yu bari dañ naan Sénégal li koy yoot mooy. le la problématique du vivre ensemble. Mm. Euh, am na ñu ne pas de liberté ñenn ñi ne y a de liberté euh, situation liberté yi doy na doy na waar ñenn ñi nee nañu bordel dëggantaan moo moo moo moo ci réew mi lu neex waay wax. lu neex waaye def au nom euh, de la de la de la liberté d'expression euh, ñuy menacer li nga xam ne moom mooy euh, suñu cohésion nationale di menacer li nga xam ne moom mooy suñu cohésion entre les les les les conflits religieuses ban ñu ne loolu mooy fléau bi gën a garaaw bi nekk di guette Euh, diggante réew mi gis nañ ko sax ci élection bi euh, ñu jël ko bu ko jox un caractère ethnique euh, am na ci sax koo xam ne wax na ci ba ba ñu ñëpp dal ci dal dal ci kawam Sénégal de plus en plus ñuy dégg ñu naan séeréer tukulóor ñuy dégg ñu naan jullit yi chrétien yi. ban saafara ngay indi. ci ci loolu moo tax ma bi may wax léegi il faut une cohésion ñu gën a waxtaan. et ça c'est extrêmement important parce que am na loo xam ne effectivement. Euh, am na ci réewu Afrique yu bari mais Sénégal yàlla dimbali woon nañ ba kenn du ko tudd lu bari wala kenn du ko wax wala boog euh, fësul woon léegi dañ koy waxtaanee xëy na rek dañ ko jox ay proportions yoo xam ne amu ko ndax dañ ko garaawal te xëy na fi muñ ko yeggal yeggul yeggul foofu je pense que lu ñu war a bàyyi xel la loolu moo tax politiquement bi may wax léegi il faut que ñu ñu ñu découpler la fonction de président ak la fonction exécutive d'un parti ci foofu foofu foofu laa jëm parce que un état boo yoree état dafa war a doon loo xam ne dafa war a impersonnel waruñu euh, di inter am ay interprétation politicienne euh, boo deelee benn mesure ñu ne voilà daf ko jël parce que kii mbokkam la kii séeréer la kii tukulóor la kii jullit la kii chrétien la euh, loolu il faut que ñu xool ni ñu koy xeexee li ñu koy njëkk a xeexee mooy d'abord di waxtaan ñi ngi koy njëkk a xeexee mooy di juboo mais ñi ngi koy njëkk a xeexee li koy gën a xeexee mooy surtout am ay charte yoo xamante ni dañ ci dañ koy nangu di ko doxale